Euh, wengal mbaay nee na am na loo xam ne wax dëgg yàlla bu fekkee Macky Sall da cee jóg moom dana ci kontaan parce que saa yu ñëwee fii yokk rek lay wax waaye Macky wàññi na waa kay nee na Macky wàññi na de nee na am na loo xam ne dafa seeroon Macky wàññi na ko am na loo xam ne tamit Macky nga koy waaj a wàññi nee na nit bu defee lu baax tudd ko bu defee safaan ba tamit dana sa ko ndax ab jullit noonu la war a demee waaye wengal mbaay gi lancé beneen message bu sew ci suuf ñu seeti alaaji wengal mbaay

ba ñu demee nag ñan ca bàyyi ñoo ëpp ñan ca tëj ñoo néew waaye mënoon nañu boole ñëpp bàyyi la ñu dem parce que xale yi dañoo génn pour rek ñu jox leen liggéey ndax service yi nga xam ne ñooy gas foofu or bi duñ leen jël li ci ëpp ay doxandeem nañu jël waaye ñoom am nañu droit bi waaye xëy na nag lañ ca àndul mooy taal oto yi donc ma dem fa négocier waxtaan ak gars yi xam naa naa fa delluwaat fan yi ak cours de route la ma sama benn waay woo téléphone. na ma makki nee na location yi maanaam location kër yi incha allah rabbi dana ko wàññi loolu nag am na problème parce que wàññi bi moom il faut mu nekk organisation boo xam ne bu tar lay doon parce que ki jël simaam ak li nga xam ne moom mooy suufam tabax ko ak kër ga nan la ko amee ndax kër ga ci poosam lay jëw wala xaalis ba ci xaalisu njaboot la bu dee xaalis boo xam ne day dundal beneen njaboot ñu war koo séddale suñ ko wàññee keneen ku lay waron am te waron ko jëf ci dara day wàññeeku. état li mu war def moy baña a wañaar loxo benn propriétaire ndax ñi mom seen kër bu leen nexé jaay lu leen nex ñoko mom ndax ciment bi dañ ko jënd te waxalé wuñ ko maçon bi dañ ko fay ingénieur ba ka defar architecte bañ ko fay légui état mo wara tabax ay kër yo xamné logement sociaux lay doon. war a ñu def lenn ne léegi képp koo xam ne da ngay loué ci kër boo fa loué ba fukki at appartement ba yaa ko moom bu ko état mënul joxe parce que mënoo dëkk ci kër loué fa pendant quinze ans ba njëgu kër ga génn yow locataire bi da nga génn njëgu kër ga te benn locataire génn nga njëgu kër ga loolu état moo ko mën a organiser uh-huh. kon buñ ko defoon tey kenn ku nekk xam ne boo loué nit sa kër mu def fa fukki at ak juróom fay yëpp normal ndox ak courant règle moom moom néeg ba war moom appartement ba kon solution am na. bi ceeb day wàññeeku de waaw démb ba nañ ma ko ci la ceeb bi dina wàññeeku saaku ceeb bi dina wàññeeku waaye ceeb bi nga xam ne mooy importe bi ci boppam mooy wàññeeku mais ñun suñu ceeb bi njëg bi mu nekkoon jot ko wàññi parce que kilo ceebu waalo bi 300 francs nga am ko 350 boo demee waalo kon jënd bi gën a yomb te nga koy bay mooy sa intérêt consommer local bi si boppam mooy tax Sénégal mun a jëm kanam wax naa leen ko ba tàyyi bu ñu bàyyi bàyyiwul restaurant ciki ciki yi nga xam ne da ngay ñëw toog ñu jox la ab pizza war a jox la ab ab dog boo xam ne njëgu cere la ak ñeex boo ko weccee ko yow yaay gën a nekk en santé ki nga xam ne dafa dem jënd ñamu tubaab bi kon nag nañu delloowaat suñu bopp ci consommer local. waaw. jëwul Wengal Mbaye. waaw dama la doon tàggu nag tey parce que dama fas yéene voyage yi waa damay voyage yi xam naa tey ngeen ne mujjee gis Wengal dafa am benn mission bu may doxi ndax dafa am lu ma dégg ñu ne day yokk te loolu du ma fu fekk da dama damay damay doxuma ak sama njaboot damay doon tàggu sénégalais yi di leen xamal ne Wengal boo ko gisatee na ngeen ko xaar ci beneen dëkk sa waay wàññi na ñaar waaye am na benn boo xam ne mu ngi ñëw dañ ko war a yokk billaay ku fi toog yokk boobu bu la fi fekkee billaay boo amee jàmm ma xam ne yow doo nit waaw ngeen ne ah ngeen ne